waaw ah, ah, man Modou Mbène Ndiaye maa dellu siwaat ah, di leeralaat tuuti maa dégg soxna Ndeye Ndoye muy kontaan lool ci mbokk boobu muy wax muy dawra dem ak kum dajee lonati aji muy wax ci seenu bokk waaye muy wax ci seenu xamante waaye dañoo bokk ndax léegi ma Abdou Awa mi nga xam ne mooy maami mooy maami aji ak maam Matar Dem mi nga xam Matar mi nga xam ne mooy maami Muxtaar moomu Matar ndax dañ xam naa dañ ko tudde maamam moo tax ñoom ñëpp ay doomi baay lañ ndax euh, ma aw daawa dama ne la moo jur madun dem madun jur aji léegi itam moo Matar Dem itam di di rakkam di doomi baay moo mooy mooy waajuru sëñ Daawuda Dem musen dawra dem jur muhtar dem mom muhtar dem di wajur di wajur dawra dem kon nga xamne fi ne e, e, kon nga xamne ñom ñep ño bokk bayyi ndax e, matar day rakki madun matar dem mi nga xamne mo jur dawuda moy rakki madun la kon ñom ay doomi bayyi lañ ñu demen gi ñep dañu jaxaso ndax fi ne ma Daawuda moom yi eh, dafa am ay mag ndax am na mag yu mbokkal ndey te bokkuñu bàyyi ndax maam Abu mi ma doon lim muy maam yi ma dul dafa yoroon soxna Fat Jeng am ci ñaari doom ku ñuy wax Yibra Dem ak Madun Dem ak ak Mad Dem Ibra moom mi ngi moo jur Sëriñ Dem mii nekk ci forage ak ku ñuy Dem Ibra Mbay Dem ma Dem moom mooy mooy waajuru Moustapha Dem mais nekk Sonatel ak soxna fat dem mee nekkoon njaareem ak njaxat dem mi nga xam ne moom la sëñ mi gi yor bi mu ci amee ñaar doom yi maam Abdou Awa mm, soxna si jógewaat fa ñu jox ko maam Mata dem mi nga xam ne rakki Abdou Awa la doomi baayam léegi nag mu daal di ci am soxna jee dem mi nga xam ne mooy ndey mag yi eh, sëñ mag yi mu dellu ci teg eh, nijaay Dawuda dem lijaay dawre dem moom yi nga xam ne moo jur muxtaar dem moo ca topp lijaay dawre dem itam sëñ mbay dem moo ca topp sëñ mbay dem sëñ mbay dem itam mm, alaay ji touba dem moo ca topp nga xam ne ñoom ñëpp ñoo bokk nday ñoo bokk nday ak bàyyi muy euh, tàmbalee ci jee dem ba ci ba ci ki imatu ma ca tudd muy alaaj touba dem ñoo bokkoon nday ak bàyyi bokk ak ñaar ñee jan nday te bokkuñu bàyyi nga xam ne ñoom seeni baay ay doomi baay lañ kon léegi euh, kay doomi njaag doomi mataar dem kay bu euh, dajeeg doomi madun kay benn lañ ndax ay doomi baay lañ <laughs> kon euh, loolu moom um, na leen leer yéen ñëpp ndax tëmb moom ko ci lim yëpp benn bopp bi la waaw bu ma bu ma limee itam noonu seen maam mooy ki leen meññi muy ma yaa Daawuda dem damay wax naan Matar Deme ko jur Moxtaar Deme itam euh, ku ñuy wax Séeré ko jur Séeré itam ku ñuy wax Madun Anta Ndiaye Deme ko jur Madun Anta Ndiaye dem moom ma dawur Deme ko jur ma dawur dem moom it Séeré ko jur Séer moom it Njobbaa ko jur mu ciy sant ñu ñu ñu bokkaat meen maam rek kon koo lim rek bu ma tàmbalee ci Daawuda moom yi nga xam ne mooy doom yi Ndey Nduy dama naan daawuda day daawuda dem moom nday moom nday ndooy day Matar Deme ko jur Matar Deme itam daawuda Deme ko jur daawuda Deme daawuda Deme itam Maxtaar Deme mu mag a ko jur ndax Maxtaar dañ ko tudde maamam Maxtaar Deme mu mag moomee itam waaw Maxtaar Deme mu mag moomee itam Siir Anta Kumba Deme ko jur Siir Siir Siir a ko jur Siir ku ñuy wax. Euh, Madoune Anta Ndiaye dem ko jur Madoune Anta Ndiaye euh, ku ñuy wax ma daawur dem moo ko jur ma daawur dem ku ñuy wax séera ko jur séer itam ku ñuy wax njobba dem moo ko jur njobba dem nag moo sanc woon tëmb demeen waaw njobba dem itam ku ñuy wax maam Lamine deme ko jur ma àgg maam dem moom moo bàyyi koo fuuta waaw ñëwoon jolof maam Lamine dem moom yi nag euh, dinaa leen ci leeralaat lu bari ndax maam la Lamine dem mi nga xam ne mooy maami waa tëmb yi mu jur njobba ah, dinaa dellu si leeral loo xam ne dana dana tax ñu bari xam ci askanu ndemeen ne askanu wu yàgg baax lañ ndax ma maam Njoba dem mi nga xam ne mooy maam yi waa tëmb yëpp ku san dem ci tëmb mooy sa maam ah, maam la mi deme ko jur maam la mi dem dellu juraat kuñ naan ah, soxna Sidi dem mu bokk ak maam Njoba benn baay soxna Sidi dem moom yi moo jur moo jur Aysa ak Sadio Aysa moo jur maam Balla Aysa maam Balla Aysa moo moo jur maam Mor Anta Sali maam Mor Anta Sali waajur Sëriñ Tuuba nga xam ne kon ñoo boo daje ci maam moomu waaw ñu demaat ci beneen maam maanaam maam la mi dem itam moo juraat ku ñaan soxna Xuree ja dem soxna Xuree ja dem bokk ak maam Joba dem mi sanc tëmb ñu bokk baay soxna soxna Xuree jam moo moo moo jur maam Demba Bunasi maam Demba Bunasi moo jur Euh, moo jur maam Ousmane si maam Ousmane si moo jur maam Alaji Malick ba tey maam Alaji Malick nga xam ne kon it ah, kooku mooy maamam ñu bokk ci daji ci tëmb ba tey maam Lamine Dem itam moo jur uh, Souleymane Dem nga xam ne uh, sëñ uh, sëñ Dem mi nekkoon njaareem mooy maamam ak sëñ ma dem ma nekkoon Sokone Ahmed Dem Sokone ñoo bokk maam ñoom ñoom it seen maam mooy Souleymane Dem waa Mbàkke Bawal yooyu nga xam ne ñoo sant Dem ñoom it Faxa Dem ñu koy wax Omar Dem Faxa Lamin Dem it mooy maam moo maam maam Lamin Dem moo ko jur maam Lamin Dem it Faxa Lamin Dem moom i euh, dañ koy wax Faxa Lamin Dem waaye Omar Dem la tudd kooku it moom maam maam Dem mi bokk mi sanc Tëmb ñoo bokk benn baay kon waa xur woowu yëpp euh, ñu sant Dem yëpp benn bopp bi la ndax men maam mi jur maam Lamine dem moom itam nga xam ne moo ñu ñooñu ku ñuy wax maam Siré dema leen jur maam Siré dem nag moom ngay topp askanam ba ci euh, ba ci benn saxaaba bu ñuy wax nga xam ne euh, ci màkk la bàyyi ko euh, saxaaba mi ngi tudd xoqubata ibnu naafi al xurayshi kon mooy maami waa tëmb yëpp ak waami ku sant dem ku ne kon daal maa ngi taxawlu foofu euh, ba beneen yoon maa ngi leen sant bu baax nag ah lu ma ci jóob rek nga xam ne bëgg lu ñëpp xam rek bëgg ñu gën a xam bëgg ñu waaye euh, lu ma ci jum rek maa ngi koy jéggalu jërë ngeen jëf sant naa ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen groupe tumb ne meen muy silatu rahim man Muudu Mbeen Njaay maa dellu siwaat euh, di am kàddu yu may jottaliwaat waaye loolu lépp ci wàllu bokk rekk la ndax fan yee ci wàll ci gannaaw dama am doon wax ci maamatar maamatar dem ñim ñim jur waaye xam nga xel dafay fattu léegi nag ma am ca ñu ma bàyyi woon mm, moo tax nag ma dellu si waat ndax seenu njaboot dafa wax ne euh, maanaam dama leen tuddut waaye nit moo dul mën a mat Mhm. waaye ñim ñim jur ñëpp xàmmi naa leen bu baax a baax xam naa loolu day doon njuumte du mën a ñàkk moo tax nag ma bëgg a dil siwaat nag leeralaat ko xam ni ne niñ bokki ñëpp kon dama koy tàmbalee bëgg koo tàmbalee waat leeralaat ko ca tàmbalee ko ca maam njoba dem kon bisimilah léegi ma fas yéene ñëw ci Mame dem ak ak njabootam ma koy baamuwaat ne waxoon naa ko waaye daa am ñu ma ci fàtte woon kon damay tàmbale si maam jo damay tàmbalee ci maam Siré dem ba nga xam ne moo nekk Fuuta maam Siré Deme de moo jur ku ñuy wax maam Lamine Deme maam Lamine moo jur ku ñuy wax maam Njoba Deme Njoba Deme moomee nag moo gàddaa yoon ñëw tam bu sanc ko maam Joba dem moom itam moo jur ku ñuy wax siir dem siir dem itam moo jur ku ñuy wax ma daawur dem ma daawur dem itam moo jur ku ñuy wax madun anta njaay dem madun anta njaay dem itam moo jur ku ñuy wax siir siir moomee muy moom la wax siir faati siir moomee itam moo jur maam Matar Dem Matar Dem bokk ak maam Njaga Dem ndey ak baay maam Matar Dem moomu nag ñim jur laa leen bëgg leeral mooy ñim jur mooy ñi ci xam mooy mooy waajuru soxna jee dem maanaam naa tàmbali ci góor ñi sax mooy waajuru njaay siir siir dem waaye ak sëriñ Moussa dem ak kuñ naan sëriñ asan dem ak kuñ naan Fatima dem léegi mu dellu amaat euh, yeneen doom ñu koy wax soxna jee dem soxna jee dem mooy waajuru sëñ ma gi mu dellu amaat kuñ naan soxna eh, mu teel amaat kuñ naan sëñ Daawuda Dem sëñ Daawuda Dem mi moom it am na rakkam ama mu amaat ka topp mooy sëñ Bay Dem waaw sëñ Bay Dem itam Alaaji Tuuba Dem moo ca topp mu dellu amaat nag beneen jigéen mu ñuy wax soxna Binta Dem mm-hmm. delloo amaat itam ku ñu naan eh, soxna Xari Séer defe naa ñooy ñoo ci di ndaw soxna Binta Dem mii nag mooy waajuru euh, Kosa Binta ca Daaru ak euh, rakka ak rakkaam ku ñuy wax Amsa Amsatu Diop Amsatu Diop ma nga nekk Italie waaye moom it mooy mooy rakki Kosa ñaar ñooñu laa fàtte woon waaye xel mooy fàttu ma bëgg a xam ne ñoom ñëpp waaw loolu laa bëggoon a leeral maanaam suñ am sa moomu xam ne ay njub te du ñàkk kon soxna Binta dem moomu ak ak xariséer euh, ñoo ci gën di ndaw soxna xariséer euh, itam nag mooy euh, waajuru kuñ naan màgg sëy ci Daaru Muxti ak joor sëy joor sëy mi ngi nekk fii ñooñu kon ñooy njobootu maam Matar dem ci ñi nga xam ne xam naa leen kon nag maa ngi sant ñëpp xam ne maanaam waxtaan wi yëpp dañuy bëgg rek ah mu noonu noonu mu def nag moo ci baax lool noonu am sa def am na solo lool ndax su ma fàttee rek bëgg naa ku may wax bu ko defee ma delluwa leeralaat ndax loolu mooy tax bokk gi mën a dox ñeneen ñi itam buñ tuddee diw ne ah, am sa jiw am sa jóob ca Italie day ñi daal di war a xam ne ndayam binta dem mii kët doomi Moxtaar Matar Dem la loolu moom mooy tax kenn ku ne mën a xam nanga nga sa morom kon maa ngi koy sant bu baax ci jumte boobu ma defoon tam fàttali ma ko kon jëf keneen koo xam ne itam maa ngi lim te yàlla dogal ma am ci njuumte rek na woote rek ne ma bàyyi nga nangam su ko defee daanu baaguwaat rek leeralaat ko ndax dañoo bëgg rek bokk gi ñëpp xamante loolu rek lañ ci jublu bëgg kenn ku ne xame xam na nga demee sa morom rek ak fa nga bokk loolu rek moo tax ñuy nekk di dugg di waxtaan jërë ngeen jëf maa ngi bala ak ñëpp ah, jërë ngeen jëf ba beneen yoon